boobu dégg nañ li nga ci wax ci projet bi mu jaay askan wi te nga wax ko tout à l'heure ci bokkoon bu ñu ñëwee direction yu mag yëpp dañ koy def appel à la candidature. Mhm. ba léegi loolu amul. amagul waxoon na ko. amagul neel amagul te dinañ ci jëm. non Ousseynou. non ka xam nga. amagul ne non pas pour ne amul. parce que man li ma xam nga lan moo ma ci naxari rek. la la négation la la négation définitive laa lay bañal. parce que ëllëg bu jamono joxee ba soppeeku am boobaa da ngay am kersa ci ni nga xam ne noonu ngay apprécier. ok léegi négation définitive boobu laa lay bañal da nga naan amagul. d' accord gisaguñu non ne amagul. non da nga amul amul wax. boo nee amul daf que parce que non xamul tax ma ne amul. Eh. lépp lu fii direction général fii ci dëkk bi te ñu xam ko mën ci teg loxo amu ci benn boo xam ni am na appel à candidature amu ci. kon du ma ne amagul. yow tu es tu es informé pourtant am na benn act bu am dernièrement te dugal nañ ci benn loi bu ñu voté assemblée mooy la loi sur la la commission de des droits de l'homme kay jiite commission bi président dafa santaane ci amendement loi bi nañ ko def par appel à candidature mooy premier acte dugal na ko nit ñi duñ ko wax est-ce que yëgoon nga ko. xam nga Ousseynou <clears throat> man de li ma doon bëgg. waaw. mooy nga. non loolu c'est un fait wala. non non non non man non déet moo tax ma ne la bul ne amut. ndax santaane na ko. loi bi ñu voté barke Dembo Ndiaye li député yi doon examiner sur la commission des droits de l'homme président de la république amendement yi dafa sant ni ministre de la justice ci amendement yi nañ ci boole que ni kay jiite commission boobu noonu appel à candidature lañ koy tabbee noté ko donc la mu diggee woon askan wi mu ngi ci dara soppeeku ci alors. xam nga aussi baax na nga défendre sa leader. mais ay acteurs baax na nga def sa job. lii may wax mais baax na aussi askan bi nga jox leen cër. non euh, euh, ah, euh, na nga défendre sa job baax na nga défendre sa leader. mais baax na aussi vraiment. li ma fi wax nii yëpp dafa amul lu tegul ci dëgg wala. non c'est ça li xam nga. non li ma la wax c'est un xam nga non mënoo ko dindi. man li ma la wax mënoo ko dindi. c'est un fait. conseil supérieur de la magistrature. waaw d'abord. Mhm. loolu laajul ay assises de la justice. déedéet laaju ko. Ah, c'est-à-dire yow. da nga joxe sa kàddu nga wax ni lii laay def loolu da nga koy génne. ci ko ci ci yi nga wax leneen. danga da nga comprendre lan moo taxoon mu woote assises yi. non c'est c'est important Pape su ñuy wootee réew mi wala ñuy def yenn activité nit ñi di xam lan moo tax ñu koy ñu koy woote di ko def gis nga li ñu dund ci at yi ci ginnaaw yëpp problème bi ci gën a majeur justice ci la bokk bañ ko falee dafa ne dinaa fexe Sénégal nekk un pays juste souverain juste et prospère souverain ci moom sa bopp juste mooy mu am une justice qui s'applique à tout le monde bañ a am kumba ndey kumba am ndey ak kumba amul ndey te nag mënoo wax justice di ko doxal war ci jëm te doo ko sëkk ak ñi nga xam ne ñoom la concerné gis nga assises yooyu je n'ai jamais vu des assises aussi inclusives aussi inclusives musuma ko gis woote ba woote ay ex-détenus non non mais mais li ma lay Pape Ngagne ji nga li may wax nii xam nga man li tax li li tax may wax nii ma nekk ci à l'aise parce que amul dara lu ma ci inventé loo ci làmb di nga ko gis conseil supérieur de la magistrature dafa bokk ci réforme yi ñu doon wax te yow boo dajalee kuréel justice di wax jommi nañu quoi ñi doon ñi doon xaar rupture di la déglu ni nga non jommi nañu rupture rek am non ñi doon xaar rupture vraiment jommi nañ quoi ce discours rupture mënta weesu no vraiment jommi nañu quoi. non déjà non non déjà même dans le gouvernement y a une rupture. cest man doon naa nekk à l'aise man personnellement. Uh-huh. ci man nga ni ma mais Pape li nga wax par rapport ak la magistrature dëgg la. président de la république kat dafa dem ba xool. gis ni loolu mënta nekk. mais Pape magistrat yi téye mu toog. nga ni ma par exemple candidature man sax au moins. man personnellement ma bañ a am problème. waaw waaw xam nga li tax du ma ko def. waaye xam nga li tax du ma ko def mooy li ma la wax léegi Pape Ngagne président da nga dégg mu jël ci décision léegi nag da ngay xaar ba mu jël ci décision bu jëlee décision nga waat ma fii ma ñëw ñu waxtaan ci mais bul juger te jëlagul décision boobaa tamit nga def loo xamante ni jaaduwul ndax paako kenn du ko jët ci mbaram. yow négal nga déglu ko. d' accord d' accord léegi négal nga déglu ko ba mu jël ci décision non yaa ci ñëwaat. ah d' accord non non sànq rek la woon naa. d' accord alors léegi noire bu xaram bi dafa bokkoon ci li nga xam ni projet bi dafa waxoon ni bu ñu ñëw dañ ko fiy jëlee. déet déet Pape mbaa liir nga suñu projet bi. est-ce que liir nga ko Pape Ngagne ah déet boo ko liiree projet bi waxul lii de <laughs> waxul lii de Pape xam <laughs> nga nag mën ngeen ñu juger apprécier ñu mais bu ñu ko dee def nañ ko def ci li nga xam ne lool la ñu wax wala loolu lañ di kaskan wi. kan moo incarné projet bi. déet waa xaaral. projet bi kan moo incarné la. non Ousseynou man tam déglu ma kan ngi nii mais kan moo incarné projet bi. Pape projet baa ngi nii de. leer nañ waxuñu ko ci de. non gis nga lii non waxuñu ko ci non waxuñu ko ci. xam nga affaire njàccaar yi may wax ak lii. non lii mooy projet lii waxuñu ko ci xam nga lii waxuñu ko ci Pape xam nga lii. xam nga lii nga xam ne par exemple loolu dañ ko cee waxut. Ousmane Sonko li mu jox rendez-vous septembre bii la wax ni ci la projet bi génn. yow nga indil ma benn projet boo xam ne kenn xamul fu mu jógee projet bi amul. non ah, lii de lañ demee campagne. ok non wala am liiral xoolal. d'accord lii lañ demee campagne Pape Ngagne. ah non non non non non non non teg ko nii non non non du ma la fi bàyyi ngay ngay def sa propagande bi quoi li bëgg na. waaw waaw waaw waaw waaw jox ma sama projet jox ma ko da nga ne projet amul projet. non xoolal gis nga nekkuma fi pour ngay def propagande. déedéet doo du propagande xam nga ni lii li ñu dégg. président li ñu dégg non déglu ma rek. li ñu dégg président Ousmane Sonko wax ko. Eh. ak lii ngeen bëgg a gëmloo nit ñi xam nga c'est autre chose. mais comme génn am. non non non Pape déedéet da nga wax ni. léegi suñu projet bi déedéet Pape man je te prends au mot ji nga fi mu toll nii li nga wax dong laay réagir. je te prends au mot da nga ne suñu projet dañ ne caisse noire bu xaraam bi dañ ko fiy jëlee ma ne la projet bi waxul loolu de projet bii ñu demee campagne électorale ba sénégalais yi fal ñu ci waxul doolu kan moo incarné projet bi. non dama ne. kan moo incarné projet kan moo nekkoon candidat ci élection yi. kan moo incarné projet bi. kan moo nekkoon candidat ci élection yi ba Sénégal kan moo ko def candidat mais le c'est un parti politique comme candidat qui a décidé qui désigné ni kii mooy candidat. c'est-à-dire yow wax pro li ñu li ñu pro Diomaye nga bëgg a nekk dëgg ah <laughs> boobu léegi maa ngi bëgg a wax Ousmane Sonko nga bañ li ñu lay jiiñ ay pro Diomaye mi ngi bëgg a nekk dëgg ah fii amul produit. non li ñu lay jiiñ pro Diomaye mi ngi bëgg a nekk dëgg. Ousseynou il a fii li am un pro projet. non attends non. maa ngi lay laaj boobu ba léegi ngay wiiri wiiri kan moo nekk candidat non li ma lay laaj lu leer kan moo incarné projet bi xam nga ko wala xamuloo ko. yow mii ci projet bi nga bokk. non xam nga ci xam nga lan laa laaj. xam nga tu incarnes le projet Pape Ngagne man j'incarne le projet keneen ak keneen sénégalais yi fi nekk. xam nga man non man non non non non xaaral xaaral ñu leeral benn affaire non xaaral ñu leeral benn affaire. Euh. soo ma bëggee jiiñ incarner projet da nga may bëgg a jaxase ak nit ñi. man incarné wu ma projet ma Samba. Ah, incarné wu ma projet ma Demba non non non non déglu ma rek. non incarné wu ma non déglu ma rek dama bëgg ñu régler loolu. Uh-huh. régler incarné wu ma projet ma Samba incarné wu ma projet ma Demba. Uh-huh. li ma bëgg ñu wax ko mooy dama bëgg pour mu leer. Mhm. Ousmane Sonko bi nga xam ne moo incarné la projet. nekk le leader de PASTEF moo taxaw ni caisse noire dafa xaraam buñ fi nekk buñ fi ñëwee dañ ko fiy jëlee. loolu dégg nga ko wala dégguloo ko. le projet n'a pas dit <laughs> man la projet laa lay wax li nga xam ne moom lay jaay askan parce que yaa ko njëkk a wax fii dama ne le projet n'a pas et puis projet bi képp kuy sénégalais di identifié wu ci ñun li ñuy def nga bugg ko mu dal sa xel tu incarnes le projet. le projet du jëmmu nit yemul ci jëmmu nit esprit la gëm-gëm la yaakaar la conviction la ka nekk ca kii maire bi jaay gerte caaf ñuy wax muy dégg te mu ciy gis boppam kooku day incarner projet bi projet bi du nit xalaat la gis-gis la idéologie la doxalin la yaakaar la donc moo tax ma ne la amul diwa incarne diwa diwa yi moo tax comme yow da bëgg rupture moo tax ma yow tu incarnes le projet bref li am solo mooy li ñu wax ci caisse noire ci projet bi waxuñu ne ni caisse noire xaram dañ koy dindi dañ ne dañ koy organiser les fonds spéciaux permettre nit ñi xam société civile ak ñi nga xam ni dañ nekk ci opposition bi ñu xam ko. fan ngeen ci toll ci loolu. waaw mais c'est des réformes. xaalis baa ngay dem ba léegi de. fan ngeen ci toll ci loolu. mais mais mais Pape Pape ces réformes là ñi ñu war a def balaa nga ci àgg xanaa am assemblée boo xam ne boo ko fa yóbbee dinañ la ko nangul loolu bokk na ci li gën a tax ñu dissoudre assemblée parce benn rek lañ leen laaj li nga xam ne président de la république daf ko diggoon askan wi te mu nekk ci projet bii mooy leen su ngeen ma falee lépp luy institution yoo xamante ni non nécessaire dinaa ko dindi keroog ba mu jotee pour mu laaj assemblée nationale pour ñu voté ko pour institution yooyu ñu dindi ko xaalis bi delluwaat ci ci ci gafaga réew mi mën a jëm ci li nga xam ne moo di farata du dañ ko gàntal waa léegi assemblée boobu di nga am tàmbali ay réforme yoo xamante ni boo leen fi bàyyi boo ko yóbboo ñu gàntal ko réforme yooyu pour mu judd wala ñu dem ci foog ñu dem élection législative sénégalais yi nga xam ñoo wóoloon le président Diomaye au premier tour voté ko 54 pour cent ñëw jox ko une majorité nag boobaa ñu mën a doxal li nga xam ne moo di suñu réforme yi nga xam ne jot nañ ko tàmbali déjà ak les assises de la justice parce que a les réformes qu'ils attendent mais aussi ah li nga xam ne mooy suñu référentiel économique su génnee ñu commencé doxal ci réew mi. d'accord alors Ousseynou